suñu liggéey moo di dañu àndandoo may def social ànd ak ñoom yàgg ko fee def yàgg boobu ma ko fi def nga xam ne tey jii ñëw pour tàllal leen loxo ba ma leen tàllal leen loxo ñoom dañ maa fekk si parce que dama ko leen ko yàgg ji ndax loo gis boo ko commencé bu njëkk boo tàllalee loxo day yomb su fekkoon jiw ma leen ko woon du ma leen mën a am mais dama leen tàllal ndax ñoom dañuy nit ñoo xam ne ay gor lañu utuñu dërëm ndax joxuma leen dërëm mais ku leen yëg fonk leen loolu la ñu xam yëg ak fonk bi ma leen jox nag moom lañ ma delloo fekk sama ci sama mouvement ndam bi ma tàllal ñu àndandoo pour jox président de la république premier ndamam fii ci Touba. li waral ma jàppale Macky Macky dafay sama doom mu yàgg nag boobu dara du dara mu maase sama doom nekk ak sama doom ci loolu nag même bi ñu koy fal 2012 maa ngi woon fii ci Touba campagnal ko fii ci Touba. jàppale ko fii ci tubaa ci fësalul dara ba yàlla def mu jël réew mi loolu nag dafa fekk muy diggante bu yàgg sama diggante moom ma jur ko tey jii tamit njuree googu moom ma dellu si Touba ma tàllal loxo bien que Touba fii mooy sama fii laa xam fii laa bëgg fii laa miin. li ñuy ci moom bu ko yàlla joxee ndam moo di mu jàppale waa Touba rek ci sama ndam social bi may def ndax dañu ay jigéen yu sonn mu bari fii torop am lu bari luñ fi war a defar bi ma fi dugg see ma lu bari lu ma xam nag ndax fi nga dëkk di nekk ak di waxtaan ak ñoom bien avant lii di am ma dégg seen naqar seen i tiis seen lu bari lu ma teg sama bët ñoo xam ni ñoo ko sampoon fii ci Touba yàlla def bi mu faloo ñu presque amuñ ci dara gisuñ ci seen bopp ñu am ñeneen ñoo xam ni mosuñu woon ànd ak ñoom ñoom la ñu tax tey ndax am na am na ñu mu jiital ñu koy doxal fii ci Touba te teguñu seen seen seen seen yoon yoon ca loolu ci ci ñi liggéey la du ci président de la République parce que xam na li muy def bu baax mais nag ni mu koy joxee ñan koy jox def ñu li ñu war a def mu dool lu ma naqari parce que dama xam moom li mu yéene Touba xam ni fa mu koy jaaree jaarewuñ ko foofa tax mënta mënta mënta xam lépp moom la nga tax man mii di ndeyam ma jóg taxaw nag fas yéene jukki ma jukki ñoo ñëpp ñu ànd ak man ma bëgg nag bés bu ko yàlla mayee ndam mu recevoir ma recevoir sama ñooñ ñooñu mu xool Touba lépp lu tàbbati fii ci Sénégal mu jox si Touba wàllam ma jox ñi nga xam ne ñoo fi nekk ma bokk te ma bokkoo ak ñoom. kóllëre moom ma booleeg moom ma waxtaan ak moom mu ma doon ndeyam tàllal ko saba loxo mu fekk sama ci kaw yëg-yëg ak kóllëre bu nu ànd du dërëm du tànk xamul dara ci président de la République xamul dara ci gouvernement bi gisu ci kenn man mii di ndeyam rek la gis loolu moom ma booleeg moom.